pour lancer le pavage de notre commune, de toute la commune. Commençons euh, à Djamlaï, équipe Yangi faut du pavé. Tous les lieux de culte des cités nouvelles. Nous avons pavé, On va commencer les rues de Nord-Foire et de West-Foire.

les travaux de la route de Denat démarrer. loolu itam mu nekk beneen programme bu am solo boo xamante ne dana gën a structuré Yoff parce que nañ am une route bu pénétrante bu dugg biir jàll Denat dem Tongoor loolu am na solo lool les équipes sont prêtes incha allah avant l' appel les travaux démarrer dans de très bonnes conditions. le pont bi ñu def fii si kanam xamantene ne day jekkalaat place Mamadou Diop defaraat ko mais yóbbu place bi tam de l'autre côté mu nekk de part et d'autre du pont dana joxaat Yoff beneen xar kanam moderniser ko parce que loolu mooy suñu préoccupation la préoccupation de modernisation de notre commune may wax aussi que ne am na yeneen projet a maintenant 2020 lay paré ci projet yoyu le stade de Yoff figure en bonne place bon de rax bi yëpp paré na showroom bi d'ailleurs la porte yi Montenegro. nañ ko côté bi bientôt la porte principale sera installée le gazon est commandé les projecteurs sont commandés Nous ngi ci finition bi inshallah courant 2020 nous dajé fofu tout Yoff

mu Yof Yoff taxaw ba vraiment mu xam ne Yoff un grand investissement sur un terrain qui lui appartient am na tam yeneen place yoo xamante ne bu suñu yéenee sotee ba li ñu bëgg am par rapport aux décisions yi coutume bi war a jël ci place yooyu yaakaar naa ne Yoff war na mën a am ñaari building administratif yu am solo ONG bi ak une structuration de modernisation bu le pavage de ces trottoirs en son éclairage andak l'ensemble des éléments structurants de notre commune loolu moi en de plein pied dans la modernité dans l'urbanisation